dañuy dem seeti jigéen ju baax ju nangoo toppatoo yeneen jigéen ñi kooku mooy ki nga xam ni moo dem États-Unis li baax Amérique yëpp mu jël ko indi ko fii nga xam ni moom moo di ci Ndakaaru ci senegal ñu dem seeti euh, Black Beauty Hair Mbène. shine bright salaamaaleykum waa Sénégal tey nag Black Beauty ñoo ñëwoon di leen présenté seen produit yu bees yi ah, ba waa Adja li nga wax dëgg la. moo tax ñu indi leen ci maîtresse greffage bu bees dafa ànd ak closure mu ngi nii rayon ànd ak euh, ay greffage am ci biir par longueur la longueur bi ñu ngi commencé 10 12 ba 14 boo ñëwee jarul ngay jënd ay takku cheveux di ci teg leneen da ngay ñëw ñu jox la ko nii la judduwaaleel da ngay ñëw ñu tegal la ko gis nga ko man moom laa def nii sama bopp nu la neex nga ciy def rein am nañ semi ondulé red bu ngeen ñëwee daal ñu defal leen ko moom rafet. frontal bi moo nekk nii dafa dégradé trois longueurs de taille am na ba longueur 22 bu ngeen ñëwee pour def chignon bas tresse pour xale yi mag ñi grande dame yi ñëpp ku bëgg bégal sa waay rek ñëwal Black Beauty incha allah duñ ko fi fekk dafa ànd ak élastique bi customisé nañ ko ba pare lépp pare na élastique baa ñëpp xam nañ ne nag coupe carré dafa xew ci jamono moom lañ leen génneel nii ci tabaski bi bu la neexee nga teg ko mu nekk coupe carré bu la neexee aussi nga dégradé ko ça dépend de vous rek nu ngeen ko bëggee rek ngeen defee ko noonu bii mooy semilees reelon bi reelon nag moom ku ne xam na ni amul fenn fu dul Black Beauty amul ci marché bi amul feneen trois tailles la longueur 10 12 ak 14 la soo ñëwee aussi boo bëggee ñu dégradé la ko comme boo bëggee aussi ñu defal la ko coupe carré wala teinte wala lu la neex rek ça dépend ci yéen rek bii nag euh, mooy trois raies yépp nag ba pare bi dañuy ñëw wan leen ko comme niñ koy posé ci suñu mannequin bi gis nga nii toog na sans autant ma def col léegi damay ñëw test nga ko léegi suñ tegee dañuy teg nii xam nga lii boo ko gisee toog na nii parce que ànd naa li nga xam ne moo lay aidé ba jaratul nga koy col bii nag périg la périg yu oyof na amul benn problème gis nga bii semi ondulé bi moo nekk nii red bi moom lañ tegaloon suñ mannequin boobu sànq oyof ba dee boo ko tegee doo déranger wu comme ma posoon sànq sama mannequin bi boobu kenn tent ko bii nag moom lañ tent ni gis nga nii tent bi du def dara nii lay mel ba keroog dangay takk ba bëgg dee soo paree may sa jaam Lamine Black Booty Hair merci beaucoup et encore tous nos encouragements euh, di ko gërëm boo demee rek foofu ca Sacré-Cœur wala nga dem centre ville loo soxla ci lu jëm ci bopp lu bàyyeekoo États-Unis wala New York wala bàyyeekoo Los Angeles mbeen daf la koy jox.